wax ju ko gën a gàtt ak wax ju ko gën a mate lii su ko waa adduna saxaloon rek adduna soppeeku aljanna ku la tooñ nga baal ko kon doo tooñ ku lay dagg nga jokk ko kon doo dagg nit ku xañ nga jox ko doo too xañe su ñëpp jëfee loolu tooñkat dootul am ba ñuy baale kuy daggee dootul am ba ñuy jox jokk kuy xañe dootul am ba ñuy ba ba ngay jox ku la xañ su loolu yëpp amatul adduna soppeeku aljanna kon fay mel ne adduna ju tukki ak aljanna ju taxaw kooku mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moustapha moomu ci rafet jikko ci lañu xamé ne kon rafet noonu mo rafeté jikko non la rafeté bind sallallahu alayhi wa sallam ah looloo tax yonent yàlla muhammad salawatullahi wa alayhi li ko yàlla jox ci ay teraanga jox ko ko ci ay mujisaat jox ko ko ci ay jëf yu rafet yooyu yëpp taggeewu ko ko lu mooy ci rafet jikko rafet jikko nag moom lañuy ñuy njëkk a peeseel jaam jikko jikko moom lañuy ñuy njëkk a peeseel jaam képp koo xamante ne rafetal na jikko naka ko wóor ne am na daraje bu foor fa borom bi tabaraka wa taala yonent am na ñaar ñoo xamante ne wax na ne jikko eh, ku leen yor tuuti ko noon nga dabu yonent ya te mooy alxilmu wal anaatu mooy ànd ak sa sago akuk nooy kenn ci saxaabaay yonent bi doon na ñëw yonent ne dafa mel ni nitu aljanna mi ngi ñëw ci mbooloo mi ah nitu aljanna kooku dey nit ñi daañ ko yàkkamtee gis koo xam ne ca waa aljanna la bokk xag seegut mi ngi mbo mi ci mbooloo mi mi ngi ñëw ñu tuut rek abdullah ibnu salaam ne tëll bam ñëwee rek saaba yi njëkkalante ko ne ko waaw loo def ba sa ba tabbi aljanna te deegoo tegtal ñu jëf ju xam ne moom ngay jëf bañ man la ko royee ndax dégg nañ yonent bi saaw salaam mu naan nitu aljanna lu ne mu wax ko ci yow lan la mu ne du julli yu bari de du xoor yu bari de waaye bu ma damay yéene ne yàlla tabaraka wa taala tay ba ngoon suma xol du ma ci dencal kenn kenn lu ñaaw du ma ci fasal kenn dara ci suma xol noonu lay fas yéene gontee su ngoonee it noonu laay def suma làmmiñ wi du ma ci wax kenn lu ñaaw du ci jëw du ci saaga te noonu lay gontee kuy xëyee noonu di gonte noonu mu ne loolu lay def xol bi du ci fasal nit lu ñaaw du ko ko yéene waaye itam làmmiñ wi du ci nit lu ñaaw du ko ko yéene ma ñaari barab yi ñooy barab ci nit di ah ñu ne ko kon nag loolu la moo tax ku ko man bul yéene kenn lu ñaaw sa làmmiñ bu ci wax dara lu ñaaw sa nopp bu ci déglu maanaam lu ñaaw waaye say bëtit bu ci xool lu ñaaw rek nga daal di tabbi aljannate deexagoo alquran ne na yowma laa yanfau maalun wala banun illa man ata bi qalbin salim bésa ngi ñëw boo xam ne alal du fa jariñ dara doom du fa jariñ dara lu mooy koo xam ne dangaa ñëw indiwaale xol bu set wecc kon day sa doom jariñ la sa alal jariñ la kay indiwaale xol bu set moy ka rafet jikkoom yonent bii nag jikkoom mooy alquran xelam xaajiwul ci àdduna xaajiwul ci àllaaxira waaye ci borom bi tabaraka wa taala wa innaka naka yaw la ala yaa ngi ciw jikkoo azimin waaye udaaji màgg fa sa tubasiroo xalsa ngay gis wa yabsiruna ñoom it danañu gis bi ayikum anakan ci yéen almaftuunu mooy ku ñu dofal ka yow xalsa ngay xam yow yonent yàlla muhammad ñoom dañuy wax ne dof nga na gis ñoom danañ gis ñaari kurél yi ñan ñoo ci dof yaa dof ci dof gi ci yow la nekk wala ci ñoom ñoom koy ñoom ay dof innaka inna rabbaka naka sa borom huwa yàlla aclamu moo ma di aja xam bi man dalla anaka sànku namu an sabili yi wëlis aw yoonam wa huwa te yàlla aclamu moo ma di aja xam bil mutadina ci way jub ya de yàlla tabaraka wa taala mooy ki xam lépp bu fekkee yonent yàlla muhammad ak gaayam ñoo nekk ci jub yàlla xam na way bu fekkente ne ah, ñoom ñoo nekk ci njub yàlla xam na te wóor na ko ne yonent yàlla muhammad ak gaayam ñoo nekk ci njub kon nag yow yonent yàlla muhammad fala tuteex bul topp almukaddibiina way di ñi yàlla tabaraka wa taala loolu nag li ko sabab li sabab ak wàccam qurayshoo ñëw ka leen jiite mooy walid ibnul mughirata naroon naa am chance waaye fa mujj ñàkk ko ñu ne ko léegi nag wuute bu dox suñ digganteeg yonent yàlla muhammad wala boog wuute bi dox suñ digganteeg muhammad ñoom gëmuñ sax ne yonent bi yàlla la ah wuute bi daal yàgg na suñ digganteeg yow muhammad ñun dañoo bëgg Napalo, yewit nga napalo, liñ bëgg mooy baal ngañ gi ngay ngañ suñu yàlla yi ak suufeel gi ngay suufeel sunuy xel ak deseloo gi ñuy deseel ñu nopp ci sa mbir loolu nag moom lañ wax yonent yàlla muhammad bu la neexee ñu def loolu wala boog ñu ànd ak yow ci sa diine ji am xat mu mat sëkk bu at mi jeexee yewit nga ànd ak ñun ci sunu diine wala boog ngay tagg sunu diine ñu ñuy tagg sa diine ñuy raaylante gannaaw yàlla tabaraka wa tere ko loolu fala tuteex bul topp mu ko almukaddibiina waay weddi yàlla bu wuyu ci liñ lay woode waddu ngeeju ngeeju nañu law tudduhinu boo nooyaloon fa yudinoona ba ñu nooyal mu daahana dañ koy tere ci diine nooyal la waaye ban façon nooyal mooy mu daana dafa xaraam wuuteeg mu daaraat mu daaraat moom it layandi kooku it yonent ne al mu daaraatu sadaxatun moom sarax la wax na ne bu'istu mu daariyan aa fa daaroo na da yàlla daf ma yónni ma nekk koo xamante ne day layandi wante kon nag yéen it dee leen layandi wante nit ñi sarax la lii yëpp ay la ma layandi ak mu daana lu dox seen diggante kon mu daana ñu xaraamal ko mu daaraat di sarax te yëpp di xeeti maslaa mu daaraat mooy lépp loo joxe ci sa àdduna ngir sa diine mucc loola mu daaraat lañ koy tuddee mooy noo mën a def ba sa diine mucc loolu la ñuy tuddee mu daaraat mbir ngi nii taxaw na àdduna ji dana yàqu mbaa diine ji yàqu waaye faawu benn dana ci defaru benn yàqu nga fexe ba diine ji defaru àdduna ju yàqu loolu la ñuy tuddee mu daaraat mooy baslu dunya li salaamati diin yulli adduna ngir diine mucc loolooy mu daaraatde mu nag mooy baslu diin li talabi dunya mooy nga joxe sa adduna sa joxe sa diine ngir amee ca adduna loolu moom musiba la képp koo xam ne su diinaak fiire taxawe ak aduna yaw noy fexé rek ba sa aduna mucc ngay sét kon ku koka ma ngay def mudahana lola dafa haram lolo tax kep ko xam dafa bayyi dara ci diineem ngir sakku ca ñoñ aduna ba am ca ñoom daraja wala mu am ci ñoom alal loola mudaahana lañ koy tuddee mudaaraat nag sadaqa la moom mooy di toppatoo diine bi àdduna du yàqu waaye àdduna di yàqu diine jag wala diine jag donte le àdduna day yàqu loola lañuy ñuy tuddee mudaaraat mudaahana bakkaar bu réy la bakkaar la ci bakkaar yu mag yi yàlla tabaraka wa taala tere ko te jaaree ko ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bañ ko wooye ne ko dañ bëgg nga jaamu suñu yàlla yaat ñu nit ñu jaamu sa yàlla jaat jaam yonent bi saaw salaam diinaam jaamu yàlla ak leneen daf koy yàq kon naka lay jaamoo xërëm at yàlla dong lañ war a jaamu lu wuuteeg yàlla dañ war a wuuteeg moom kon te xërëm tegewul ci dëgg du diinaay dara waaye ak réer la te yonent bi saaw sallam ak réer lay xeex ak ak ñàkk bopp kon ñoom duñu déggoo walit mii nag nga xamante ne moom moo jiite kuréel gi yàlla tegaleel ko juróom-ñeneenti xas walla fukki xas yoo xamante ne yu xeebo yàlla booleel ko ko fala tuteex bul topp almukaddibiina way weddin yàlla wala tuteex bul topp kulla xallaafin bépp gëñaakoon ci neen waliit dafay gëñ te la muy gëñ du doon dëgg mayin kuy ku daa ji waliit ku xeebale ci bindub yaram xëmmaasin kuy ayu balaa koon ceew làmmiñam foo ko fekk ma ngay macha in kuy doxaakoon bi na ci rambaaj foo ko fekk dafay rambaaj dafay doxug rambaaj te rambaaj du tàbbi aljanna yonent saaw salaam nee na laa yadxulul jannata xataatan xataatun kuy dugg laa yadxulul jannata xataatun wa wan maam ku kuy kuy jëw kuy kuy du tàbbi aljanna man naayin ku de añi la lil xayri ci joxe aw xalal ku naya joxe alal la dërëm du ko génnee mootadin ku daa ji jàggati te mooy tooñkat la atimin def ko ta bakkaar la akashik utullin aji xiis ji xol la mooy ku wow xol la ku naqadi deret la te baada dalika gannaaw loolu zanimin doomi wooteel la doomi wooteel daa mooy doomu njaalo ak leneen doomu njaalo mën na xam ne diwe ko jur mën nañoo bañ a xam ke ko jur waaye ñu xam ne rek doomu njaalo la kii nag doomu njaalo la ba pare te kañ wax ne mooy baayam du baayam mu ne mbooleem waa Quraysh rekk ñoom dañ naan fenkat la walit fenkat la waaye walit waatkat la walit ku doyadi la walit koo xamante ne jëwkat la walit doxkatab rambaaj la walit ku nay la walit jàggatikat la walit ku bari bakaar la walit ku xiis xol la aka bon mu ne nag yépp wóor na ko ba des baat bu mag bi mooy baada zalika zanim laaya ji buñ wàccee mu daal jël guntu xam daal ñëw ci yaayam ginnaaw bu mu waree fasam ne ko gis nga suma guntux bii yàllaay muhammad moo boole ay fukki melokaan tegal ma ko juróom-ñeent yi moom na ma xam naa ko ci sama bopp dëgg la bu fukkeel bi nag yaa ma ci mën a hen ne boo ma waxal dëgg ma rey la yow kenn rek yaa ko mën a xam ndax waa Màkka loolu kenn xamu ko ci faww nag tey nga wax ma leen may dëgg boo ma waxu dëgg ma rey la ndax zanim laa mooy doomu njaalo ndax njaal doomu njaalo laa waaw mu ne ko wallaay Mugiirata mi ñuy wax ne mooy sa baay ba tax ñu naan walid ibnul mughirata mughirata du sa baay de allahu akbar ndaw si ne ko loolu wér na de yow doomu njaalo nga mughirata tuuña la woon malgré suma borom kër mënta ànd ak jigéen waaye dafa bari woon alal ñu yàgg lool ah te mënu may am doom te alal ja bëri ma ragal su faatoo alal ji rëcc ma amoon na benn sàmm bu ko daan sàmmal moom laa jox sama bopp ca nga juddoo yow doomu sàmm ba nga kon walid ibnu raa'i lañ waroon a wax dëkk naa kon walid doomu sàmm ba yow sàmm boobu ndeysaan kii nag normalement ke alquran booleel fukki xas juróom-ñeent ye wér ko ba ko ca wérut yaayam wax ko ko mu wér la jaado woon ca moom mooy mu gëm yàlla rek rot na ci hadis ñu ne laa yar xulul jannata waladu zina wala waladahu wala walada waladi ah ñu ne doomu njaalo du tabbi aljanna malu ko ca doomi doomam du tabbi aljanna malu ko ca doomi kooka du tabbi aljanna maari day taali boobu hadis abi hurayrata nettali na ko ndax weer naag wérut wax jànga ca biir jële nañ ci abi hurayrata mu ne wala du zina du tabbi aljanna wala du zina charru salasa moo gën a bon ci ñett ñi doomu njaaloo aw xay la bu bayi koo ci baay ak ndey ju baaxut sayyidatuna Aïcha ne ah wallahi xayru salaasa huwa lam yafaal shay'an ma mana waladu zina charru selasa wallay kena kay dañ war a wax ne moo gën ci ñett ñi mooy moo gën nday ji gën baay ji ndax baay jeeg nday ji ñoom ñoo ko tooñ fekk abdoulah ibne abbas moo wax loolu moo ne doomu njaalo jo ci gën a bon mu ne déet doomu njaalo jo ci gën a baax kay moom faggu tooñaa nga waaye dañ koo faggu dañ ko koo faggul bu jéggaloo yàlla yàlla jéggal ko bu tuubee yàlla nangul ko tuub te moom deful dara ah amma loola moo am ci yooyu la xadis waaye dey Abdullah ibn Abbas ak sayyidatuna Aïcha Mawlana Cheikh na Tijaani moom am na lu mu wax ci loolu moom nee na doomu njaalo maa lahu illa nnaar illa ida xasala lahu tatahir min ahadi al akabir alxalifatu an illah aw alimaman naibahu hakada yaqulu cheikh nee na doomu njaalo moom sawara rek lu mooy su amee ak laabal ci kenn ci wëlu yàlla yu mag ya ah lu Cheikh Tidiane bëgg a wax mooy doomu njaalo boo amee ak laabal ci wëlu yu mag ya mën naay tàbbi aljanna kon nag bu boobaa dafay bëri lu seeti nitu yàlla ndaxte lee moo dajeek matuwaay ci jamonoom koo xam ne xalifa la ci xalifa yàlla yi booba boobaa mu set wecc mel ni ku doxutoon doomu njaalo wala yaari ilimaan yoo xamante ne ay kuutalam lañuy doon su dajeek ñoom itam daal di laab loolu la Mawlana Cheikh wax waaye borom xam-xam yi wuute nañ ci hadis bi lan mooy maanaa doomu moo gën a bon ci ñett ñi ak lan mooy maanaay sawara rekk moo ko ñeel ñu ne maanaay doomu njaalo mooy ki nga xamante ne mooy ki ëppale ci ñaawteef bile loolu lañ ci jublu ne ki nga xamante ne ku bëri lu muy xare ñu di ko tuddee jàmbaar jàmbaari mixraab kon itam di ko tuddee doomi mix doomi doomi xarb ndax bëri lu muy xare moo tax ñu tuddee ko doomi doomi xare ki njaalo ngir bërik lum def njaalo danañ koy wax ne danañ koy wax itam doomu njaalo xam ne nit ki danañ koy wax doomu njaalo fekk ku bëri lu muy njaalo moom lañ ca jublu ah bu boobaa kon du doon doomu njaalo yi ci boppam mi ngi mi mel ni moom kon kooku judduwut lumooy na nekk rek kuy njaalo bu fekkente ne murat moomba lañ ci jublu kon bu boobaa wala du zina charre salasa mooy koo xamante ne kuy njaalo dong nga nga def muy sa métier kon yow yaa gën a bon ci ñett ñi ndax doomu njaalo ki juddoo ci njaalo boog moom dafa fàgguwul benn bakkaar dafa xëy rek ñu ne ko kaay judd mu judd waaw su fekkente ne deful bakkaar te yàlla moom du tooñ ah wa ma ana bi dallamin lil wa ma allahu bi dallamin lil abid yàlla du tooñ maanaa jaam ñi te moom lu wér la ne doomu njaalo jaam la ci jaam yàlla yi bu defee lu baax nekk jaam bu baax bu defee lu ñaaw nekk jaam bu bon te kon ana lu ko ci kon ñu ne ah dana yaam de waaye bariwut nag bariwut de ndax doomu njaalo toujours ndeyam ak baayam fañ koy seetaan wala ñu sóob ko ci yoon woo xam ne maanaam ca lay jëlee addunaam ba far sànku te bu sànkooy daanaka day mel ni toqant ba royaat ca loola ala xaal su dajeeg matuwaay ci jamonoom day laab matuwaay yi nag aka bëri waaye aka naqadee xam yàlla ne walite ngoog doomu njaalo la kon mbonaay jikkooy bonam yi yépp cosaan ba moo baaxut xam nga baladu tayibu yaxruju nabaatu bi idni rabbi walladi xabasa laa yaxruju illa nakidan jiwu bon gàncax gu bon rek lay indi an kaana moo dafa nekk zamaalin di borom alal ji bëri wa banina ak doom yu bëri looloo ko tax a rëyu de doom yu bëri alal ji bëri doo nga tax mu jàpp ne dara la waaye su doolu nag loolu kenn du ko teg fenn wax nañ ne am na fukki doom ak ñett caay doom yu góor ndeysaan ida tutla ndem jàngeef na alayhi waral ko ayatuna sunu kawteef yi di alquran qaala mu ne moom walit asatirul awalina waay waay nari mag ñu njëkk ña la loolu nag cag mujjantelam loolu la daan mujj di wax waaye ca njëlbéen day waxutoon loolu dafa wax ne gis naa alquran ji du waxu du waxu du njabaraan du ngisaane waaw wax ji kaw la jëm waaye wax ji dara du ko fare kaw wax ji suuf gi dafa bëri ndox kaw ga meññi gacc wax jooju de dëgg la moom ndeysaan gis nga yàlla xéewal gi ko jox moo tax muy muy ay ci ay doom ak alal motax mu nan alquran euh, nari mag ñu jëk ñoo rek gisoon nañ ko am nañu ko njëkkoon a wax quraishu dañoo xamatu lan lañ wara wax ndax wax nañ ne alquran muhammad ji ŋàññi na sunu euh, euh, xam na kum ŋàññi ci sun biir de te tuddul aw turam kii kumu doon ndax asim nu waa abo walid ibnul mughirata ah kan la ca yàlla ne loolu kay neex nay xam sana simuhu danañu ko mandargaal alal xurtuumi ci aw ñu xam de te mooy danañu njoof bakkanam ca badar wallahi ndeysaan njoof nañ bakkan ba de ñu xam ne ndekete woo yàlla moom mom la jublu ca wax ja inna naka nun balaw nat nañu len ñam wa makka jot yàlla nattu na leen ba yonent yalla muhammad yalla tek na len juroom ñaari hat yo xamantene ne ati kor la yonent saa sallam ne allahumma jaalha alayhim sinina kasinina sinine yusuf kasini yusuf ñu kor juroom ñaari at inna naka ñun balaw naa am nattu nañu leen kama balaw naa naka ñu na toon asxaabal gaa yu tool ba a gaayu tool ba seen mbir baaxut dañu amoon wajur wu baax waajur wa daan def lu baax gëm yàlla amab tool miskin yi bari fi su tool ba jotee dafay bàyyi dañuy xaar tool ba ba góob ko jot mu ne bés sàngam ni ki altine danañ dem ca tool ba góobiku ku yàlla man loo ñëwal ñépp ñëw góob si kenn ku nekk la nga xëyee ca miskin ya mu ne la xaaj ko ci digg bi genn wàll gi nga jox ma ko li ci des nga yóbbu sa kër bu subaa ñëwaatal noonu la ñuy demee ba tool ba jeex miskin yi am luñ dunde li ci des mu séddoo moom ak njabootam wallaay ndeysaan nekkee mbax googu ba doom ya ba baay jafaatu doom yi nag wuutu doom yi def seen kelkin xamuñ ne kat baay ji ñoom ñëpp la doon la doon dundal waaye bañ defee seen kelkin ñu ne ah yéen de xam ngeen ne góor gi moom kenn moomoon tool yi te ñun ñëpp a ko bokk buñ ci naree xajal miskin yi duñ ci xaj de nu ñuy def te fi mu nekk nii góor gi miinoon na loo xam ne buñ ko defee du baax ci ñun nu ñuy def nañu aar tool bi buñ jékkee ba góob ko jot ñu yolleeku ndànk fajar mooy càppantati joxante rendez ca tool ba buñ defee benn système rek boo xamante ne ñëpp danañ dajee rek ñu dajee ca tool ba góob ko indiaat ne cell waaw maanaam bëgguñ miskin ya waaye bañ joxantee rendez moom daal yàlla ebal benn daay rek daay moom ñëpp xam nañ ko sawara suy takk ci àll bi faagaagal la fa daay la yàlla ebal rek mu lakk tool ba ca guddi ga rek ñu dem rek fekk ko muy genn ak daay ah ñu yem caag miskin ya lu ko indi kon nag kanaa buñ ne alxasadu yaakulu alxasanaati kama taakulu naaru alxatab kañaan dafay lekk jëf ju baax